ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy abonnement yi nga xam ni yéen a koy wëj di ko def ci Aladji Malick TV di fi taataane information yoo xam ni euh, yu am solo di leen gërëm tamit ci abonnement yi nga xam ni euh, toll na ci euh, juróom mi junni abonnement maanaam vingt cinq mille abone mu nekk loo xam ni lu am solo la ngeen koy bàyyi xel ci li nga xam ni seen seen préféré loole kontaan nañ ci bu baax a baax information dañ ko doore ak euh, Barcelone mi nga xam ne euh, mooy équipe bu Safli Sappalé mi nga xam ne euh, moo ko yor nga xam ni démb bi ñu dajee ak équipe bu américain bi daanaka ñoom dañ ca am ndam lu set bi ci ñi ngi ko am ñaari bal ci dara nga xam ni démbale ak Memphis Depay 40 minutes ak la nga xam ne mooy 87e minute mu nekk victoire boo xam ne bu am solo la ci ganay Barcelone yi dañuy jóge foofu nag dugg ci li nga xam ne mooy ganay Real Madrid yi nga xam ne ñoom démb am na jongante buñ ko doon def jongante boo xam ne ña nga ci doon daje Juventus de terrain yi nga xam ne euh, gone yi ànd ak euh, Karim Moustapha Benzema euh, football nan fa match boo xam ne match référence la boo xam ne ci match amical yi ni wéy di ko amal ñoog Juventus seen match daawul yomb nga xam ne match la boo xam ni Karim Moustapha Benzema ràññeeku na ca moom it dugal na ca benn bi fukki minute ak juróom-ñett la ko dugal nga xam ne match boo xam ne bu amoon solo la waaye Asensio mi nga xam ne ci dem ak dikk la toll moom it dugal na ca benn bii boo xam ne juróom benn fukki minute. ak juróom-ñeent la ko dugal bii boo xam ne ñëw na ci heure am ndax dafa fekk ah, goney Real Madrid amoon benn boo xam ne di wutaat ñaar yu ñu doon dolli waaye bu mu ko tollantee daanaka match ba foofu la doon ah, doxe daanaka jeex loole ca la yem gone Juventus yi nag démérité wun waaye nag football ah, gañeem ñàkk ñoo ànd Karim Moustapha Benzema ñi mu àndal ak Ancelotti nga xam ne ñoom ña ngay defaru pour ñëwaat ci saison bi nga xam ni Euh, moom lañu war a dëgmal nga xam ne saison boobee euh, nekk na saison bu nar a am si ñoom euh, sens wala boog saison bu am solo ci ñoom ci at mi nga xam ni moom la ñu dëgmal nga xam ne day nekk at moo xam ne lañ ci bëgg a def mooy lu raw li ñu defoon ñu def ko Eden Essar moom it ràññeeku na ca match boobee programme tey bi gone yi ànd ak Idrissa Gana Gueye tey ji am nañ match bu ñu war a football ak Nantes loolee mi ngi am bu 17h55 jotee ci Canal Plus match boobee di bu am solo moom dañu bàyyi loo leen ko xel ci seen agenda bi nga xam ni am ngeen ko tey ji donte ay élection moo am ci milim réew di réewum jël joob nga xam ni am na solo lool beneen bi tamit euh, mooy ñaari info transfert yu am nañ ko fi tey jii dañ leen ci euh, duggal léegi bu fekkante ni euh, bàkk bi jàll na léegi ngeen diglu ko ñu dugg ci ñaari info transfert ñaari info transfert yoo xam ni am solo la doon ñaar yooyu euh, ñu doore ko Bernardo Silva euh, moom mi nga xam ni euh, ma nga ca Manchester City di fa football di fa doxal ci côté càmmoñ ko lu am solo loo xam ni mën nañ cee teg loxo waaye loolee doyut ci moom ndax li mu bëgg ba fi mu toll nii te lankandaare di ko waxtaan ak gone City yi mooy dem fële nga xam ne mooy FC Barcelone goo xam ne sax def na nañu jéego accord verbal euh, bu nu sukkandikoo ci ñaari journal yi nga xam ne ñoo nekk ca Angleterre ak fële ca euh, Espagne nga xam ne ca Catalan yi euh, waxtaan am na ci seen diggante waxtaan woowu nag waxtaan nañ ba déggoo tënk ci aw kàddu kàddu yooyee nag lañu tënk la mën a tinkër ñi bu lu dul maanaam dayong ma ne ca Barcelone ñu jaay ko Bernardo Silva loolu bu amee contrat ba leer na naa ñi day am kon loolu moo ko moom lan taxaw ci contrat boobu nga xam ne am nañ ko beneen contrat boo xam ne taxaw na mooy ki nga xam ne mooy doomu Sénégal bi nga xam ne fi mu toll nii moom it bëgg naa jóge fa Watford donte gone nag ñu ngi koy wat pour ànd moom ci saison bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci Ligue 2 bi fële Angleterre waaye loolee moom du ko neex waaye ku amul maam namp ko amul yaay namp maam loolu moo a ci moom moom doomu sénégalais bi loolu moo ne ci moom kon ci kanam tuuti yeneen information yoo xam ne yu fi gën a belleeku la euh, loolee dinañ ko fi indiwaat bu baax a baax bu ko defee ngeen mën koo jàngat ci li nga xam ne mooy dimanche bi nga xam ne dimanche sub élection la ci kanam tuuti ci yeneen information ci Aladji Malick TV bi